salaamaaleykum mbokku Sénégal salaamaaleykum mbokk jàngalekat ak mbokku élève salaamaaleykum waajuru ndongo yi ak képp koo xam ne nii mu ngi yëngatu ci wàllu njàngale xale Sénégal ci wàllu enseignement général mais aussi ci wàllu formation professionnelle xam ngeen ne démb ci conseil des ministres président de la république Giel dogol pour nous donner ndongo yi classe d'examen dellu ci à partir de alxamis bi ñu jëm muy ñaar fukki fan ak juin 2020 pour nous yi nga xam enseignement général ak formation professionnelle et technique décision est nga gannaaw bi nga xam ni jàppoon nañ ne ñaari fan ci weeru juin bi weesu la ñu waroon dooraat njàngale mi ci classe d'examen yi décision boobu nag li ko laloon mooy que président dafa am yéene protéger ndaw ñiy jàngi xale yi protéger jàngalekat yi mais protéger population yépp ci mbas mi nga xam ni moom la ñuy dund

moo tax mu jàpp ne saa su ne ci li ñu mën a jànkantool war nañu adapter suñu système éducatif et de formation pour que mu nekk système bu mucc ayib ci dynamique bi nga xam ni moom la suñu réew dugg mooy oyofal lépp la nga xam ni jëm na ci état d'urgence ak lal ñun ministère yi nga ñun la mi ñu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 Je xam-xam yi dinañ saytu nan la classe ni ci proposition yoyu inshallah dinañ ko ak à partir fiek le 31 juillet 2020 pour année scolaire 2020 2021 njàng mi pour que ñu lat xalé yi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 ñetti fan ci août ba fan ci septembre 2020 xam ngeen un calendrier scolaire président de la république moo dogal donc comme dañ l'avons nañ le président de la république dina jël décret pour daggaat année scolaire bi wax aussi que né année scolaire 2020 2021 dina tambalé ci première semaine mois de novembre 2020 Inch'Allah. pour ñu doxal calendrier bi ma wax léegi ministère yi nga xam ne ñoo seq njàngale mi ministère éducation nationale ak formation professionnelle jàpp na ne acteurs yi nga xam ne ñoo seq njàngale mi yépp comme ni ñu ko doon defee bi mbas mi taxawee ba léegi ci diisoo ci waxtaan war nañ ko continuer te acteurs yooyu mooy ñi nga xam ne ñun ñoo seq ministère yi mooy aussi autorité administrative yi administrative yi gouverneur préfet sous-préfet moi aussi élus territoriaux maires, maire président de conseil départemental syndicat jàngalekat yi société civile waaye juru ndongo yi partenaires qui nga xam l'éducation ñooy jàppale éducation bi dinañ pour que le calendrier soit ñu mën ko doxal pour nous, dund ak mbas mi ak école bi dañu relever ay défis